gare routière bu Njaaréem nag gannaaw bi nga xamante ni Macky Sall wax nañu dakkal li nga xamante ni mooy transport bi gare routière bi dana salaw maanaam nit bu nekk ci ab coin bu toogee di waxee mën nga kaa déglu ba ca taliba lépp leen a teg. Cheikh Thiam. nga gaar xam xumbaay la baaxoo ak ak ak ak jalaw jalaw ginnaaw loolu amatul nag moom xam nga ne moom. dama génne dama ñëw ci garab parce que lii dañuy dañuy wétali leen rek. féexal soxool xol taal sa oto ñëw toog waxtaan ba midi midi une yooyu nga nga ñibbi parce que toogaay bi dafa dafay métti tey lu ma lu ma ci daj rek wóor na mën am na am na am na ñu daj lu ko raw ndax am na ci ñoo xam ne moom métti na lool tey nag bu dee pour ñun waxuma la sax safari mais ñi ma gën a yërëm sax mooy mooy mooy li ñu wax ñuy wax nun ay ay ay mooy comme ñi ni ñi ñi ni sartel oto yi rek nga xam ne tey boo taxawee moom mooy woote oto bi fees mu inki si jox la sa xaalis nga la ngay la ngay jox jox ko waaw nag kooku bu ko amatul nga xam ne moom suuroo suur la doon def ah ndax man lu bon bon bon tey bu fekkee bu dul woon yow moom sax ñi nga xam ne moomuñu seen oto lu bon bon buñ buñ buñ demee weer buñ demee dawee weer bu doon borom oto bi neen jàpp leen junni bii bu doon ko seen kër kii nga xam ne nag moom par suur la doon def loolu boo ko dajalee mu muy téeméer dem bu ngoon mu mu mu taxanaatu ci sa ay ñaar fukk loolu yóbbu këram amatul loolu xool xool xool fi fii nga jàkkaarloon nii restaurant bi xool ñu fi nekk xoolal xoolal xoolal jaaykat yi fii bi pëlfautur bi nekk te ñooñu ñëpp ci gaz bi lañ dund ginnaaw yàlla garage bi pour mu yëngu transport bi moo ko doon doxal loolu dafa feeñ tey jii ba ci nga xamante nii mooy yeneen bërëb yi nga xamante ni ñoo nekk ci garage bi mel ni ay jaaykat ami jabaay nag moom nekk benn jàmbaar ndekk laa doon jaay ne añ ak reer loolu daal laa doon jaay mais sant bi depuis bi ak kii oto yi arrêté ba léegi suñu liggéey dafa arrêté parce que ñun tamit ñoom la ñuy gis pour jaay leen bu ñu gisul chauffeur si duñu am ñu jaay vraiment métti na trop. damaa jàpp ne am na ñoo xam ne dañu doon jóge fii ñoo xam ne dëkkuñu fi dañu leen fee fekk nañu fii liggéey ñu mel ni ñuy jàngale ak ñooñu te ñun ñoo leen di jaay ndékki su suñu fenn loolu moo waral ñuy xëy si mais xëy si bi nii sax ñàkk pexal ndax des nga jël si bitig ba pour nga motal versement sax. du mot ndax li ngay jaay du mot sa 10 personnes xam nga loolu it moom toog a yem presque maanaam moom ba feebar bi daata ñëw moom bu ñu xëyaan di jaay li ngay jaay si nit sax moom mënoo ko woññi moom parce que doo xam ñaata lay toll si xayma ndax maanaam daan nga versé am sa bénéfice am loo jëndale say doom doo ñaan kenn daal on rek sant yàlla daal mais jamono yi ñu toll ni moom affaire bi métti na trop ndax da ngay ñëw jaay si ubbi sa place di gis ay lu matul fukki nit mburu bi du jeex sa du mot day tane toogaay rek da da di boo jëlee mburu mi di nga si ndékki seen waa say doom ndékki si loolu la rek jabar mënul xëy toog lool kese la man daal suma sañoon Macky Sall comme day jàppale nit ñi maa ngi koy ñaan ndimbal barke Seydina Muhammad ñun ñi di jaaykat yi mu bañ ñoo fàtte parce que ñun ñi maag ki ma dendal ñoo yem yaasin amuñu jëkkër amuñu sax xaale bu siiré koo xamante dañuy mën a jàppale dañoo tàggu suñuy borom kër yu tur tànk yu ndaw seen papa ñu fi ak lenn kon suñu sañoon ñun tamit duñu fàtte benn yoon ñu ngi koy ñaan Macky Sall mu jàppale ñu si boolewaale ñu suñuy. wuy wàlloo wuy wàlloo naa ne Adiouma Faye nekk dawalkatu taxi fii ci euh, diwaanu Njaareem ñu fekko ko ci garage yu euh, gaynde bi nga xamante ni Fileyrang moom la woo ñi nga xamante ni mooy état bi. Euh, soo xoolee taxi gis nga leen fi ñu gaare nii surtout ñun ñi nga xam ne ñooy daw ci garage bi Kër Gaynde parce que fii soo xoolee daanaka comme aéroport la rek parce que oto il faut ñëw jógee dakaar Thiès Kaolack ñun ñu mun a yeb quoi mais loolu su amul ñun duñ mun a yeb parce que gis nga ma nii ma gaara nii fi laay toog sama xarit mécanicien yi su ngoonee ma ñibbi yenn saa sax du ma am kenn ni ma taxaw nii depuis sept heures ba léegi nit yeegul ci oto bi. safar yi gis nga ko safar yi ñu ngi toog daanaka ñaari weer leen ñu mot yor sa njaboot yor say soxna yor ay doom xëyoo gonto xam nga vraiment neexut man mi di wax ak yow soxna laa bàyyi ak i xele mais gis nga nii nii nii su ma ñibbee nii nii xam nga sëriñ bu ma yobu sax aw ma ko kon vraiment gis nga xam nga ne metti na. loolu daal moom laa loolu su état bi daal vraiment su nekkee mun na mun affaire daal mun naa gaaw ak nu mun a gaawee nag moom moom moom xeeb nañ ko moom suñu moom muy muy doon tey tey balaa cinq heures a jot. seeti ñi nga xamante ni tamit ñoom eh, ci wàllum maanaam oto la ñuy yëngatu ñu xool ci benn tôlier ku tudd Abdourahim saar waaye Abdourahim Sarr day lim ñu xamal mooy daana ko dañuy xëy suba rek ñëw ubbi daana ko toog. vraiment suñu liggéey moom taxaw na boobu ba léegi ndax affaire bi moom wax dëgg metti na ci ñun. te liggéey bi la ñu yaakaar ci liggéeyu transport bi te transport bi daanaka bu doxul ñun suñu liggéey du dox ndax transport bi ñun ci la yore suñu kër di ci faj suñuy soxla yàlla dogal na nag boobu ba léegi moom dañuy xëy si fii daanaka da ngay toog bu ngoon jot léeg nga for dara léeg-léeg doo for dara dañoo tëj suñu place fi ñu toll nii ñun ñëpp ñu ngi toog waaw di xaar nag ba xam affaire yi moom nu muy mujje waaye suñu sañoon daal ñaan yàlla moom mu gaaw jeex ak jàmm Euh, gannaaw bi ñu seetee ki nga xamante ni mooy tôlier yi seeti jaaykatu ndekk yi waaye seeti nañ ñi nga xamante ni mooy électricien oto yi électricien oto bii nag di wuyu ci turu Pape Seck moom de bi ñuy dugg ci ci biir fi nga xamante ni mooy bërëbu liggéeyukaayam daana ko gis ñu fa kenn. boobu ba affaire yi tàmbalee ba léegi da xëy rek toog bu ñibbi jotee nga ñibbi daanaka loolu dencoon lépp lekk nga ko fi ñu doon dépassé suba wóor na Sëñ Fallou ma ko. dimbal bi moom wax yàlla dégg laa ci am fi ñu doon ba léegi. suñu ci su ci mënee su mënee ñëw nag mooy gën a gaaw quoi ndax fi ñu ni soon nañ trop war na sëñ Fallou war na yàlla fi ñu toll ni koy wax de yàlla état bi ñoo ngi def seen liggéey waaye wax de yàlla boobaa léegi dégg gun daal si ndimbal bi dégg daal lañ ci am wax dëgg yàlla. kay xam nga ne kuy dimbali kay daa war a gaaw waaye nag jikki ba nga xam ne léegi nit ki dee na ba noppi nga door a nga ñëw ci dëj bi ne ah moo na noonu de noo ngi doon ñu xanaa